Activision ginnaaw bi ñu leen di yoo ci talaata yi tey jii 30 juillet 2019 ñu ñëw ak yéen ci li gën a ci journal yi ubbee tey ñu ubbee l'observateur ak xëtam bu njëkk daanaka rek activiste yi nga xamante ñi ñoo nekk ci Sénégal seen affaire baaxatul kii di Adama Gaye nekk journaliste consultant moom nag teg nañ ko loxo démb daanaka rek la muy def ci Facebook moom lañ ko tegee loxo moom nag dina risquer entre un an et à cinq ans de prison ndaxte yooyu nga xamante ngi koy teg ci ndoddu kii di président Macky Sall Khalifa Sall ba tey radiation ba nga xamante ne nii defoon nañ ko ca assemblée nationale moom nag buggul lu dul delluwaat ca place am bee di assemblée nationale euh, kii di Cheikhouna Keita moom nag moo nekk di jàppale ci liggéeyam bu war bi nga xamante ne nii président Sall teg na ko ci loxoom moom nag ma ngi koy defee nu ko waree di défendre euh, majorité bi lutte ba tey ak euh, Eumeu Sène moom nag daanaka ma ngay joxe ay ko Modou Lo daane jël boo xamante ne ni kenn dootu ko werante ah, xale yu góor yi doon jaay seen bopp nag ñoom nag police teg na leen loxo. source a ñëw ñun ci Ousmane Sonko ak Mamadou Lamine Diallo ñoom ñi nga xamante ne nii neexoowuñu woon ak kii di Abdoulaye Wade ñoom nag daanaka seen diggante commencé naa ratax Adama Gaye ba tey ñëwaat ñun ci injure publique yi nga xamante ne nii mi ngi koy def nee nañ nag Adama Gaye ak Assane Diouf kiif kiif ndaxte li ñuy def teguñu ko fenn dañuy woyal ba tey ak laas laas nag ñëw ñun ci kii di Mimi Touré daanaka rek conseil économique social ba tey jii lay door Eumeu Sène ñëw ñun ba tey encore ci laas nee na nag moom frère am moo ko xamal ne que euh, Modou Lo daf ko daan euh, kaw maître Sidiki Kababa moom bi nga nii moo yore wàllu force armée bi moom nag euh, ma ngay xamal ne ñi nga xamante ne nii ñoo rey kii di Major Sané nee na nee nag ñoom daañu leen jàpp juger leen comme na mu waree dañuy wéyal ba tey ak libération libération ñëw ñun ci lii nga xamante ne nii tuumaal nañ ko kii di DG Aliou Camara moom mi nga xamante ne nii dañ ko tuumaal wàllu violation di secret bancaire dañuy wéyal ba tey euh, information judiciaire yi nga xamante ne nii gis nañ ko ca mairie bu Ndakaaru daanaka rek ña ngay euh, tuumaal kii di Papa Abdoul Ba moom mi nga xamante ne nii moo nekk ca mairie bu Ndakaaru ba daanaka rek nee nañ lépp rek moom moo ko waral yi ujaaj yi nga xamante ne nii ñooy dem Màkka daanaka ñi njëkk a dem dem nañ quitté nañu Ndakaaru démb daanaka rek euh, ministre Amadou Ba ma ngay dalal xel ak euh, Dakar Times Dakar Times nag ñëw ñun ci làmb ji ba tey nee nañu nag euh, Tyson ak Serigne Ousmane Dia Bombardier ah, yi Diop ni Balla Gaye Eumeu Sène ñoom nag kenn werantewul ni jël nañu li nga xamante ne nii moo di euh, roi des arènes kenn wéranteetu ko nee nañ nag bu ñu gisee ci lii nga xamante ne ni CNG seen i archive ñoom nag gisuñu kenn rek ku dul kii di Manga 2 moom moo nekk loo xamante ne nii confirmé nañ ni que roi des arènes la lool lañ leen gisaloon tey ci seen revue de presse di leen jox di daje ba suba jàmm incha allah.